وثبته بالهادي الوفي ولتدخل المصلح في يدي وفي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين wa ala alihi wa ashaabihi sawi ridwaani wa tamkiin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu te leen ziyaara di leen ndokkeel ci bis bu tedd bi ak ci waxtu tedd bi barab bu tedd bi ñu nekk di ñaan yàlla mu musal nu te musal leen mu sàmm nu sàmm leen di ko dollee ñaan mu sàmmal nu sunu kilifa gu tedd gi nekk ci sunu kanam gën ko fee bàyyi lool te wéral ay cëram may ko taw tawfiq ba mu àggal yéene yi nga xam ne yéene na ko ci diine ji yéene na ko ci yoon wi te ñu ànd ko ak moom suñu waxtaanu tey nag mi ngi jëm ci rek waxtaan wi nga xam ne sëriñ bi waxtaane woon na ko ci wàccaayu màggal gi bi muy jubale ci murid yi ak taalibe yi xitaab bi nga xam ne moom la jubale woon ci ñoom tam làmboo ay tomb yu bari yoo xam ne màggal ga ci la waaye yeneen tomb ci la bokk na ca tomb yooyee lu jëm ci wàllu sémb bu rëy bi nga xam ne sémbal na ko cheikhul xadim radiallahu taala anhu lu jëm ci wàllu jàng ak jàngale mu waxtaanoon ci ay tomb yu am solo yoo xam ne dañ caa bëgg a tànn benn rek waxtaanee ko ca ngir ñu mën koo jariñoo naka yi ci tomb yi ci desit ñu mën koo e, jël gannaaw boobu tomb bi mu ci tànnoon mooy tomb e, sémb bi nga xam ne sémbal na ko Cheikhul Xadim rëy gu mu rëy ak aajowoo gu mu aajowoo ay jumtukaay yu bari alal yu bari tax sémb bu rëy la boo xam ne Cheikhul Xadim radiyallahu taala anhu moo ko fi bàyyi woon mébétoon ko ba bind ko المصطفى لي بنى القدوس مدرسة بها يزول الأذى والجهل والكمد muy sémb bu rëy boo xam ne matukaay yi nga xam ne moom lañ ci war a jëlit war naa tolloo ak sémb bi ndax ni mu aajowoo ay matukaay ci taxawal tabax yi noonu la aajowoo ay matuwaay ci la koy doxal ak la koy saytu ëllëg bu tabax yi àggee bu mujj boobu nag muy saytu ba ak doxal ga mooy bi gën a jafe te mooy bi gën a gudd ndax day am ab tàmbule waaye amatub yemukaay wax xasee tàmbule duutu yem fenn at mu jot day soxlawaat lu ëpp lam soxla woon daaw moo tax mu aajo taxtiit li ñuy wax taxtiit plan plan boo xam ne walla ay matuwaay yoo xam ne day garanté ak saxam walla day garanté ak continuem وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا sunu la ilaha illa السلام أكبر لا إله noonu ñu ko waxee muy sëmb boo xam ne tabax gi ak taxawal gi laaj na lu bari waaye la koy saytu ak la koy doxal nag lam laaj moo gën a bari te moo gën a yàgg moo tax mu laaj jël matukaay yoo xam ne day garanti ak saxuk loola ak continuer loola ba nga xam ne du yem fenn ni ko sëriñ bi faral di waxee mu bañ a laal suuf benn yoon la koy tee mën a laal suuf nag mooy jël matuwaay yu mat sëkk yoo xam ne dana mën a garanti loolee matuwaay yooyu nag bari na lool jumtukaay yi ñu war a jëfandikoo ngir loola amit bari na lool waaye bokk na ca bu am solo boo xam ne dañ koy faral di euh, dañ koy faral di gannaawal te mu am soxla solo lool yàgga amit lu muy tekki ci biir diine ji muy muy al waqful yi waqf waqf ci boppam dafa am lu baree bare bare loo xam ne ci taarixul islaam ay sémb yu mag yu rëy yoo xam ne la ko taxawal ak la ko yor mu ngi aju woon ci waqfu boo xam ne jullit yi ñoo ko defoon bàyyi ko fi fa nag mu niñ koy faral di waxee rek mooy nga am sa alal yoo xam ne yaa ko moom mu lew la jëmm jë nga bàyyi ko fa ne la cay jugee ci ay njariñ def naa ko ci yoonu yàlla def naa ko ñu tabaxee ko jàkka yi wala ñuy roy ko jàkka yi wala def naa ko ci eh, jàngukaay yi wala def naa ko ci fajukaay yi lay jugee ca loola sab oto la wala sab immeuble la wala sab tool la wala sab forage la la cay jugee ci njariñ nga fab njariñ loola nag jox ko jullit yi ñu di ko jariñoo nga am koo ko féetale ñu di ko jariñoo ci loola loolu mooy waqf di lu am solo loo xam ne lislaam da cee da ko sopp lool soññ ci lool tam fu baree baree bari sunu borom tabaraka wa taala mi ngi ñuy soññ ci ñuy fab su sunuy alal di ko joxe waxuma la sax jox alal waaye fab la gën ci sunuy alal di ko joxe di ko def ci yoonu yàlla lan tanaalul birra xatta tunfiqu mimma tuhibbun mimma tuhib ata tunfiqu mimma tuhibbuuna jooju borom xam-xam yu bari wax nañ ne lañ ca jublu mooy fa maanaam fab alal joo xam ne danga koy def ci yoonu yàlla mu ne fa jëmm ja ne fa waaye njariñ la di ca la cay génne di njariñ di dem ci loo xam ne luy njariñ luy jariñ julli yépp la luy jariñ euh, euh, bindeef yépp la yonent bi sallallahu alayhi wa soññee ci wax addis boo xam ne addis yi bari na lool yi mu ci wax waaye ba ci gën a am solo mooy ida maata bnu aadama inqataa amaluhu illa min talaata sadaqatin jaariya aw ilmun yuntafawu bihi aw waladin saalihan yadawu lahu nit ki bu génnee àdduna mboolem jëf yi mu doon jëf ci jëf yu baax yépp day dagg la koy fay fekk fa mu nekk ñett rek la ba ci jëkk mooy sadaqa jaariya mooy mooy wax fu boobu loo xam ne da ko fee bàyyi nit ñi di ko jariñoo njariñ la la cay génnee nit ñi di ko jariñoo yool ba di la fekk fa nga nekk boobu moo ci jëkk moo yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sayidna omar radiallahu taala amoon na alal joo xam ne daf ko amoon ci xaybar muy tool bu bu mag mu dikk ci yonent bi ne ko day am naa ci xaybar day tool boo xam ne wala suuf soo xam ne amut lu ma ko gënal musumaa am alal ju ma ko gënal loo ma ciy digal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko da nga koy waqfu ci yoonu yàlla danga nga fay bàyyi tool ba la cay génnee ci njariñ jullit yi di ko jariñoo yool ba di la fekk fa nga fa nga nekk boo boo génn àdduna Seydina Omar sala radiallahu taala anhu fa def loola fab tool ba lépp def ko waqfu jullit yi ko jariñoo di ca faj seen soxla bi fi yonent bi jógee ba léegi it mboolem borom xam-xam yi ak mboolem jullit yépp maase nañ ci ne waqfu moom lu lu ñu sopp la lu ñuy ñaaxe la lu am njariñ la loo xam ne eh, képp koo ko man yàlla man loola ko war nga koo def te kenn musu ko weddi ba jaabir sax radiallahu taala anhu sahaaba boobu nee na lam yakun ahadun min ashaabi nabi za maqdiratin illa waqaf nee na euh, saxaaba yi yonente bi sallallahu alayhi wasallam kenn munu cee am kenn musu cee am kàttan am ci man-man lu dul ne am na lum jël ci alalam def ko waqf ku ci masam alal rek faaw nga jël dara ci sa alal def ko waqfu lillaahi julli di ko jariñoo Usmaan def na ko ca biiru ruuma jënd ko jox ko julli di ñu di ca naan Ali yu def na ko Talha def na ko Zubayru def na ko Zayd ibn Saabit def na ko ak saxaaba yu baree baree bare bi noonu mu ko waxee kenn ci ñoom ku mas a am rek lu ëpp sa soxla fab nga ca la nga dese def ko waqfu jullit yi di ko jariñoo di ko euh, euh, di ko faje seeni soxla cheikhul xadim radiallahu taala anhu mi nga xam ne moom moom moom moom suñu royukaay it la wax ci saraxe te te te te te waqfu mooy sarax bu sax rek sarax bu sax sarax loo infaaq joxe ci yoonu yàlla wala loo saraxe ci yoonu yàlla waaye mu des fa sax nag di wéy mooy sarax bi gën ci sarax yi sarax bi gën ci sarax yi mooy waqf ama tasadduqu ma al infaaqi fa jamaa al xayraati bi ittifaaqi mu ne saraxe fab sa alal def ci yoonu yàlla dajale na mboolem ñoom ñaar ñooñu dajale nañ mboolem yiw yi daj yooyu dajale na ñeen ka kulli ma yakunu nafal muslimin ak lépp luy jariñ jullit yi waqf fa di daal di dugg foofu lépp luy jariñ jullit rek def ko aw yiwa nga ca woo xam ne kenn mënut xam mu toll nee na bu yomal xiyaamee ba ni ñëpp teew sunu borom tabaraka wa taala teewal bindeef yi di leen fay seen i jëf ñu fab siraat teg ci kaw kaw sawara ñëpp war caa jaar bindeef yëpp di jànkoonteeg ay njàqare ak i tiitaanga nee na day am benn waay bu jóg di woote ne ayen ana ñi doon liggéeyal jullit yi ñi doon fab seen alal di ko jox jullit yi ñu di ko jariñoo anañu ñu ne ñu ngi nii ñu digal leen ñu dem ajjana gaaw dem ajjana ñu ubbil leen duñ jaar fenn duñ dajeeg benn fitna duñ dajeeg benn coono dañuy dem ajjana directement kon sa sarax ci yoonu yàlla ak def sa alal ci yoonu yàlla nekk na lu am njariñ loo xam ne ku ko xam doo ko sàggane rawatina nag sarax boo xam ne day day continuer moom waqf boobu nag li ñu jublu ci rek def ko jublu bu mag bi mooy ñu am benn sémbu boo xam ne sémbu bu lislaam la aajowoo lu bari ñu bëgg nag buñ ko tàmbulee mu bañ a taxawati loolu sëriñ bi wax bu mu bañ a laalaati suuf ñu bëgg nag alal joo xam ne day tax duutu laal suuf la muy soxla ci alal dana ko man te day continuer alal joo day continuer nga xam ne ña ko def danañ fi jógee waaye la lañ fa bàyyi continuer di liggéey lam la mu waroon liggéey ndax sarax baax na joxe alal sa sa sa alal ci yoon yàlla baax na asaka baax na waaye lépp boo fa jógee yow mi ko doon joxe loolu day la dagg waaye wax fa nag da nga fiy jugee ba noppi nag mu continuer moom di jariñ li mu doon jariñ jullit yi yool ba it continuer di la fa di la fa fekk kon jublu bu mag bi mooy fexe ba sémbu yu mag yi nga xam ne lislaam am na ko lu mel ni lii Cheikh Mamadou Mountakha taxawal muy jàngukaay bu mag mii la koy mën a taxaw wëy di wëy di wëy di wëy saa la ca la la ñuy joxe di ca génn njariñ la cay génnee ñu di ko ci def loolu mooy njariñal waqf dëgg-dëgg mooy njariñal waqf beneen njariñ ba te des mooy day wone eh, nja nangu gu nit ki nangu ak njaamam ci yàlla jublu gum jublu aaxira alaaxira it àdduna itteelu ko alal àdduna yóbbaalewu ko poñetum àdduna mi yóbbaalewu ko la mu am ci alal mu xam ne la ko ciy jariñ mooy la koy jariñ ëllëg mu fab ko la koy jariñ ëllëg mu defar ko ci ndax loo fi bàyyi bu ëllëgee ñeneen koy jariñoo waaye wax fa nag moom nga fi bàyyi di ko jariñoo fa nga nekk waqf rek mooy li nga xam ne sa alal da ko fi bàyyi di ko jariñoo nekk mu di la fekk yool ba di la fekk waqf bokk na ci yi nga xam ne euh, loolu lay jariñ bokk na ca it mooy sellal sa bakkan setal ko ci jikko ju ji nga xam ne moom la yàlla gën a bañ ñëpp yonent bi bañ ko jullit yëpp bañ ko muy nay nay ak bëgge bëgge nay nay yàlla da ko bind ci ab xol la koy génn ci xol nag mooy fab sa alal di ko joxe ci yoon yàlla wa man yuuqa si nafsihi fa ulaa'ika humul muflihuun képp koo xam ne yàlla génn na ci yow nay nee na da ngay nekk ku taxe kon ak dimbalante dimbalante jullit yi jullit yi yëg dañuy dimbalante ñi am alal ñu yëg na fam nañ ci seen alal di joxe ñi amul alal di dimbandikoo loola di ko euh, fajee seeni seeni soxla ak nag euh, fexe ba masro yu rëy yi nga xam ne jullit yi am nañ ko muy lu mel ni sémb bu rëy bii ñu am lu koy doxal loo xam ne du taxaw mel ni njàng mi ak wér-gi-yaram gi ak ndox mi ak yoon yi ak làmp yi lépp loo xam ne jullit yi dañ koy jariñoo ku ca def sa alal joo xam ne day tax loola du taxaw loola nekk na loo xam ne lu lu am solo la loo xam ne eh, eh, sunu borom tabaraka wa taala sa soññe na ci yonent bi sallallahu sa wasallam soññe na ci lu lu waqf ba gën a gën a am njariñ nag luñ ko gën a jariñoo waqf ba di gën a amal njariñ ka ko def maanaam ka ka waqf waqf boo xam ne ña koy jariñoo dañoo yaatu mooy gën ka nga xam ne ña koy jariñoo dañoo néew ka nga xam ne dafa wax fu wax waqf boo xam ne ña ko ña koy jariñoo ñoo gën a aajowoo ñoo gën a soxla day gën gën a ab ab yool waqf ba nga xam ne ña koy jariñoo gënuñoo am soxla naka noonu def waqf ci sa dund bi ngay dund doo jekki ba ne bu ma faatoo nañ ma defal nangam waaye bi ngay dund nga jël ci sa alal loo xam ne da nga koy def fu ne lii day def naa ko ci yoon yàlla lu ci génnee kenn ko donn kenn ko maye kenn ko jaay waaye lépp lu ci génnee ñu def ko ci yoonu yàlla nga def ko ci sa biiru dund bi nga nekkee di dund di mucc nga fab loola def ko ndax yàlla alal nit da koo bëgg bi muy dund day bëgg alal seytaane da koy ragalloo ñàkk seytaane yaidukumul faqar bu ko defee nag mu fab ci alalam bi muy dund ànd ak jàmmam mu fab ci biir alalam loo xam ne day wax ne lii kat ci yoonu yàlla laa ko def lu ci génnee rek ñu dal ko ci yoonu yàlla loolu nekk na lu am solo loo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam soññe na ci lool nee na nit saraxe ci ak dundam ab dërëm moo gën mu saraxe téeméeri dërëm gannaaw bu mu faatoo bu ma faatoo nañ ma defal nangam bi ngay dund nga nga def ca nangam joojee ci bi ngay dund bu dee ab dërëm nee boo defee téeméeri dërëm gannaaw boo faatoo benn dërëm bi nga def bi ngay dund moo ko gën fa nag am na ay ay atte am na ay charte am na ay teqale yu bari yoo xam ne moo ca aju ci ka koy def ak lañ koy defee loo xam ne boroom xam-xam yi waxtaanee nañ ko ci téere yi képp koo xam ne yéene nga koo def da ngay dellu ci loolu wala nga dellu ci boroom xam-xam yi ñu gën la koo xamal kon loolu mooy li nga xam ne moom lañ bëggoon a waxtaanee yàlla yàlla dimbule ba suñuy alal ñu mën cee def loo xam ne dañuy jariñ tey dañuy jariñ ëllëg te nu uh, sàmm ko yàlla bàyyi fi sëñ Cheikh Mouhamadou Mountakha mii ba sémb bii nga xam ne moom la ñuy moom la ñuy waxtaanee mu àggale ko ñu ànd ko ak moom bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu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 anna muhammadan rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salah hayya ala salah الحمد لله الذي تتحير دون إدراك جلاله وعظمته القلوب والقواتر وتكل في مبادئ إشراق أنواره الأحداق والنواظر العلي العظيم الحكيم العليم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 ثمرة العلم الذي هو شرف الإنسان وفضيلته التي بها فاق كثيرا من أصناف الخلق وهي سبب الفوز والنجاح وسبيل السعادة والفلاح وهي سريعة الحقيقة وحقيقة السريعة ومنهاج الجنة qaala taala wa maa xalaqtu ljinna wal insa illa liyacbuduun waalamu anna cibaadata allahi laha satraani satru limtihaali wa satru littinaab wa amma alimtihaalu fahuwa ficlu ttaacaat وهي فرائض والنوافل فالفرض رأس المال وهو أصل التجارة وبه تحصل النجاة والنفع والنفل وهو الربح وبه تحوز الفوز في الدرجات قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقرب إليه إلي المتقربون بمثل أداء ما افترضت عليهم ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه وأما الاجتناب فهو ترك النواهي والامتناع من المعاصي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 الحمد لله العزيز الغفار مكور الدهور ومحيط البحار والصلاة والسلام على سيدنا محمد قدوة الأبرار وموعظة الفجار والآل والأصحاب نجوم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 فإن من قصر عمله وكثر للموت ذكره جد في صالح العمل وهرب من التسويف والكسل وزهد في الدنيا وقلت رغبته فيها واشتد حرصه على الاستعداد للأخرى وبادر بالتوبة وتباعد عن كل ما يشغله عن الطاعة واعلموا عباد الله أنكم تحصون الله بجوارحكم وهي نعمة عظيمة من الله بها عليكم وأمانة منه لديكم fa in istacmaltumuuha fi taatihi wa saraftum kulla wa saraftum kullan minha lima xuliqat lahu faqad shakartumu nicmata wa xafistum alxurmata wa addaytum wa axsantum lillahi alxidmata wa lakum cindahu jazaau saakirin wa sawaabu almuxsin <clears throat> muhsinin fanzuru kayfa tahfazunaha wa tar'awnaha wa innaha awwalu ra'iyatikum qaala ta'aala man amila sayyi'atan falaa yujzaa illaa mislahaa wa man amila saalihan min dakarin aw unsaa wa ulaa'ika yadxuluuna aljannata yurzaquuna fiihaa bi gayri xisaab wastaxfiruu rabbakum summa tuubuu ilayhi inna rabbii raxiimun waduud yaxfirullaahu lanaa wa lakum wa li saa'iril muslimiin aamiin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 الله أكبر الله سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسواه والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسره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 تسمع بها asalaamaaleykum. asalaamaaleykum.